Lac Rose nuyu naa la. fay naa la. waaw ñoo ngi si jàmm waaw. sa combat Ama Neex sénégalais yëpp gis nañ li ci xew. ñuy ñu koy ñaanal wér. actuellement ci lan nga nekk. waaw sant yàlla rek ñoo ngi nekk si lu ñu war a nekk. moom li ko daloon noonu mën na dal ku ne. li ko daloon li ko daloon noonu mënoon na maa dal man mais dañ koy ñaanal yàlla rek suñ borom may ko wér ba mu delluwaat say activité am xam mooy loolu ko boo gisee beneen avance da ngay non loolu moom man wax dëgg yàlla mënu ma si sori parce que xaw ma si dara mi ngi si loxo sama ñoom père rek ñoom ñoo gérer loolu mi ngi seen loxo man maa ngi nekk samay entraînement rek toog di xaar fu ñu ma jaar rek ma aw fa. diggante Sokh ak Franc dañoo bëre barki démb am ku ci daanu am ku daan ñu bëri ne Lac Rose am na fa ay adversaire mun nga maa wax loolu. non loolu moom man mënu ma si sori loolu. da nga yox fan jëm nga bàyyi seen la jëm ci ama seen la jëm la ci ama seen la na ñëw ñu maye ko kii lu ma dee na ama seen ñun pare a